tamit ci wàllum sunu justice su réew ñu gis ñu bëri ñu ngi ko ci ngañ rawatina ci problème mu Khalifa Sall problème mu Karim Wade yàggul ñu refee ko ko ci mairie bu bu Dakar ba léegi wuutu ko fa nekk daanaka coow lu pënd bu réegul yow ban jàngat nga ci am. alors man da nee naa nag xam nga Sénégal tam dama bëgg euh, nit ñi ku ci nekk ci domaine bi nga féete nga yem fa tey boo ma laajoon dara ci journalisme ci média ci communication naa la ci tontu lu rëy. waaye justice dama leen ne man mënuma ci avancé wu lu bari ndax du champ boo xam ne maîtriser naa ko wax dëgg yàlla mbirum xalifa Sall man de personnellement yéenewuma ko xaw ma ko Khalifa Sall yaakaar naa si sama àddina benn yoon laa ko mos nuyu te boobu dafa am sama xarit yu jóge woon ca France maire bu Mantes-la-Jolie bu ñëwee fii ci Sénégal damay ànd ak moom ci ay activité am mu demoon visite de courtoisie mairie Ndakaaru ba soobu yaakaar naa laa mos nuyu Khalifa Sall koo xam ni dama koy yéene euh, jafe-jafe wala dama koy yéene mu nekk ci coono waaye li ma mën a xam mooy euh, ci mbirum Khalifa Sall euh, profane bi ma doon ci ci justice mënuma ci avancé si dara lenn rek loo xam ne mun naa ko wax mooy dama jàpp ni justice bu Sénégal am nañu responsabilité bu toll ni du ñu jël doomu jàmbur du ñu jël wayjuru jàmbur du ñu jël kilifa ku toll ni meeru Dakar ñu tëj la ci kaso at ñaari at. jàpp ñetti at moo xam ñaata at la pour ne defoo dara loolu dama jàpp ni xëj na justice Sénégal bu dee looloo am itam dëgg dina feeñ yàlla na dëgg yàlla dëgg feeñ ci mbiram. non xam nga mënuma toll fii man maa ngi sant yàlla je touche du bois aw ma benn demeli ak justice bu Sénégal aw ma dara loo xam ne tax na ba tey maa ngi jaabante dégg na tribunal ak sama kër ma mun a xam ndax justice baa ngi dox ak ndax doxul li ma jàpp. te mun ko apprécier mooy ay nit ñu jàng comme man ni ma jàngee journalisme di doxal sama métier comme ni sama yeneen confrères yu nekk RTS nekk DTV nekk feneen di doxalee seen métier noonu laa jàppee ni war naa respecter juge bi ak euh, avocat beeg keneen ak keneen képp ku nekk ci ci ci ci mbirum justice ci nu muy doxalee liggéeyam ba keroog may gis safaan wa mbirum xalifa sal wax naa la ko li ma ci jàpp lu terre à terre mooy dañ ni euh, mairie Ndakaaru euh, dafa doon commandé ceeb ak dugub. ñu ni ba ñu xoolee gis ni ceeb ak dugub mos faa dugg ñu ni kon xaalis bi anam fanweeri million la woon par weer ñu ni ko wax ñu kon fan nga doon dugal xaalis bi yaakaar naa loolu mooy loolu mooy coow li te loolu ko fa yóbbu donc moo tax ma ne man bugguma sori ci loolu ndax amul benn dossier boo xam ne jot naa ko ñu ne ma lii mairie Ndakaaru la ma fuyate ko xam la ca donc vraiment li ma koy ñaanal en tant que jullit en tant que mbokk jullit mooy yàlla euh, teggil ko ay ay ay ay coono euh, te itam euh, coow bañ a bañ bañ bañ bañ a judd ci lenn ndax Khalifa Sall senegal moo ko dépassé man mii Sénégal ma dépassé ñun ñëpp li ñu tënk mooy réew mi ñu bokk donc nañu nañu góorgóorlu ci li koy doxal entretien di seen émission boo xamante nag Tawfekh Production moo leen ko indil di dalal ay kàngam yoo xamante nag ñoo xam ñu nekk ci làngu politique yi wala ci wàllum koom-koom bi wala éducation soxool na actualité réew mi ak lépp lu jëm ci wàllum rek li suqali réew mi loole nag mu nekk loo xamante ni day am ci seen Tawfekh Production mu nekk émission boo xam ne képp ku mu yitteel mën nga woote ci numéro téléphone yi li 77 792 50 43 wala boog nga jël numéro téléphone bi li 77 251 04 05 mbokk yi émission baa ngi képp ku mu itteel nag bul ko wuute te mbokki internet yi bu leen ko tardé benn yoon ndax lépp lu jëm ci wàllum décryptage jàngal leen au lépp lu soxal actualité réew mi dañ ko ci waxtaane ci biir émission bi direct entretien ci Tawfekh Production